man képp ku ma xam xam ne man bëgguma lu nooy suma live man nay métti rek ful ak fayda jom dem ñibbi dafa am lu ma tàmbal gaay te sama bët bi laa am fu ma ko teg. ndax soxla ma wax ju bëri dama si bugg jëf ju bëri. waaw hmm. nga sakkanal say batterie. man duma ko ñuy appal ay temps. man duma ko naan ay une minute ak yaakaar naa ni yow sunu combat bar bi siflet dañuy daje parce que ni ma gisee ngay wax nii. doo dellu ginnaaw. non loolu moom bu am jàmbaar. waaw kay loo ci hésité wala du la arrière moom wax signature. bu arbitre def naa ko. 30 secondes nga wax. laa la wax. bu la neexee ngeen xaar. yow wàcc nga bu yàgg nii dama koy bëri yow. xam lu ma bëgg dama bëgg nga ne ma dama lay woo digg ñàngatang mooy nga yokku gaz bi. man si digg ñàngatang laa gaz boo boo yokkul gaz bi baalu ma la. barki Seydina Mohamed. sa dawal yokkal gaz bi lu ma yor rek xëy sa dama lay assommé. Alxuraan aujourd'hui neen si giri sama kilifa la giri sama kilifa la moom ñoom Balla Diouf ñoom Papa Sow na ma sonal giri moom doon na ma sonal mais demoon benn pas nee na ma soo bëggee am ay ndam ci arène mm-hmm. del bàyyi mag ñi ngi daan fii ci biir itam waaw demoon naa dama tëg tëru gàllaaju dara mais li ma mooy loolu xam naa mooy euh, gàtt tànk maanu man ni ma gis ni xaw ma jigéen xaw ma dara entraînement rek entraînement kese sa 35 ans nii mosoo xam jigéen mosoo xam jigéen ni mel. xam naa ndimbalu yàlla ak sëriñ bi mm-hmm. ak ki ñu ma tuddee moo tax yenn moo mm-hmm. euh, ah, taal télé grand Iba taal télé man yow doo taal télé. musoo taal télé. jigéen musuma wu fóot. ah yéen non El Amin El Amin El Amin non non. yow mër mër yow daal li joxe. <laughs> man yow yow sa yaram moo koy laaj. waaw non parce que da ngay entraîné. non man de damay sonn dégg nga man damay sonn. da ngay gént kon. waaw du maa dina ma dal kay. mais yàlla def loolu parce que jàmm il la jàmm lañ mais naa ndimbalu naa soxla su baax nee na moom seetal koo bëgg maa koy def xarit jot na su yàggee sa bopp bi la yëg dëgg la man la wax ma ne ko ah sëñ ne ko ne jaayante naa sonn naa nag loolu yàlla xam na ko du ma la rësi la du ma la wax dara dama lay dalal rek mais wéet gi daay bañ ko parce que xam naa sama bopp. Mhm. waaw sonn naa trop daal. yow daje koog sa jinne daal. <laughs> musuma daje sama seetaan nag. Mhm. te mu gaaw am nag. ah mais il faut mu am nag. <laughs> Ah, ah yéen a nekk sa jinne nag. ah, ah a xanaa si baax dina baax. waaw ah, bëgg naa soxna nag parce que wax dëgg yàlla loolu mooy Sëñ Tuubaa hmm. te day yokk sa jàmm yàlla dal hmm. mais lii moom wax dëgg yàlla mënut a continuer Modou Lo mu wax mooy dëgg waaw hmm. <laughs> ah, na ko mais kon kon uh-huh. du wàccaat ci mbapat bi mbapat mooy base rëg-rëg mii nga gis dañ ko doon daan ci mbapat dégg naa mhm. dafa dem ba të waaw mujj gi rëg-rëg jënd ko du événement rëg daan lu ma événement wallaahi wallaahi parce que bëri man mi ni nga ma jënd kenn jàngoon mhm. mhm. loolu mooy bëri bëri dafa dem ba page mille ku la gën a xam ne ko bàyyi ba dimanche kenn xamul làmb ku nekk da jox sa xalaat moom ay maa xam li lii ah. ku nekk sa xam moom rek ngay joxe kenn xam merci euh, Ousa Sow de toujours euh, si waa record assan Waalo Gueye ñu ngi koy nuyu de passage ah, dafa jox parole ki nga xam ne mooy Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 dafa doon def open press nee dina daan Quench en deux minutes bu gàtt mhm. deux minutes daal nee na combat moom si deux minutes mu daan Quench si deux minutes mu daan Quench ay waxam ay bëgg-bëggam la mhm. te aussi dafa war a ànd ak gëm-gëm ak termination parce que Quench nekkul mbër boo xamante ni da da nga mën a ñëw peut saax-saaxe ko fexe am li mu li am mhm. mais Quench mbër la boo xamante ni au fur et à mesure combat bi di yàgg au fur et à nekk mm, parce que dafa mbapat lim carrière bi mu def ci mbapat tey boo seetloo turu Quench bi foofu la jógee mbapat mhm. gaay bu ñu ñëw di sotti ko galaat mu yor butéelu Quench di xëppoo ah, andi doole mhm. andi forme andi coffre bu wër Mhm. te yaakaar na loolu moo déterminé ne kon gis nañ aussi Alioune Seye aussi dernière ñetti dernier combat yi xeex si si xeex la ko gagné kon yaakaar naa ne bu ñëwee mhm. sëf Quench peut-être li mu andi. Mhm. peut-être mën na si mën na am dara. Euh, Ouza. Mhm. Coence Alioune Seyde deux minutes moom mu daan. mu daan Coence ko Coence ñibbi géejawaay. Alioune Seyde Fakko ndeysaan maa ngi nit ku baax. ku ah. am yar ku am teggin. vraiment ku baax mu dajale waa Guèye yëpp. Ah. champion naran la. Ah. Alioune Seyde sax Sénégal amul ku ko dàq bëri. dëgg la fan gis xeex bi rek. parce que mhm. Dóor mu daante mu daanu. waaw Dóor Issa bi mu daanu. Jos mu abandonné. kon moo Coence combat bu neex la Coence

waaye nag dàqul bëri Alioune Seye 2 bëri bi dañ koy séddoo waaye xeex bi Alioune Seye numéro 2 laa ko hmm. waaw Alioune Seye 2 na bëri combat distance gauche et puis ku wel si combat rapproché tooñ ko mel ku bëgg xeex fekk góomu xeex bi waaye dama koy jege tooñ ko si classé moo jàpp ko bëri moom mais yaa ngi bëri combat bi de <laughs> man de dinaa jóg mi tey. benn Ronaldinho ah, <laughs> mooy Ronaldo de Assis Moreira mooy turam dëgg kooku ah. moo. bu ñu doon wax làmb ku donn ba moo doon Pelé. waaw Erson Arantes do Nascimento. Ah, Ronaldinho nekkoon eh, une légende ba léegi une légende du football. donc man jàpp naa ne en terme de valeur intrinsèque ak talent. waaw c'est le meilleur jour de tous les temps. Mhm. waaw ci talent kese bu ñu ko tegee ci mhm. waxuma ci ay statistiques ak but. Mhm. mais talent talent. talent moom football waaw c'est le meilleur jour de tous les temps. talent bi mu amoon kenn amu ko ci football. dafa boole li Ronaldo di def. boole li Messi di def. li Cristiano Ronaldo def li Pelé di def daan ko def. li ñëpp di def. te kenn du ko def ba mu ciy toll ay jamonoom. waaw Ronaldinho yenn dribble yi ci moom nga koy njëkk a gis. yenn xeetu duut mm-hmm. Mm-hmm. ci moom nga ko daan njëkk gis. Mm-hmm. passe à l'aveuglette passe à l'aveuglette moom moo fekk ci football sax Ronaldinho mën naa ne moom moo ko moo ko jàngal génération yu bëri. Philippe Falap ah. Philippe Falap. Uh-huh. si Ronaldinho nga ko daan gis. Ronaldo bu mag daan na ko def. mais ñëw dafa ñëw indi beneen touche. ci lépp luy dribble. dëgg la lépp luy dribble luy dribble Ronaldinho daf ci am ay création yoo xam daf ko def ci jonglage. donc inspiré. joueurs yu bëri ku ci mel ni Cristiano Ronaldo. ñoom Lionel Messi ci ay ci wetam lañu lañu lañu lañu la ñu màggee. di ko idolaate ba doon nañu doon. nga dugg Santiago Bernabéu. mu mu toj fa ba ñëpp jug di la tàccu. ba ñëpp jug di la tàccu. Uh-huh. Paris Saint-Germain bi. Uh-huh. Paris Saint-Germain Ronaldo championnat France amul lu mu fa deful mook uh-huh. Marseille. Ronaldo xeetu bi bu ne dugal na ko championnat France. balaa moo dem Barcelone. mu jóge fa dem na Italie. Milan AC def na fa lu ne. te avant loolu championnat Brésil lu ne def na ko fa. def na ba pare prouver le roi Messi. waaw ba pare waaw si si moom moom moo premier but wu Messi ci carrière am mu Ronaldinho moo ko paas. dëgg la très grand joueur. gagné coupe du monde 2002. Mm. Mm. ak le Brésil moom tamit kii le meilleur lutteur de tous les temps. de tous les temps en terme de en talent. talent waaw <laughs> kii bu seetaanul combat mag Ousa Sow 2. waaw Zos 2. waaw c'est mooy mooy bi muy jékki-jékki rek fippu nii def nii wala boolu boobu. boobu <laughs> ko mu rëcc. stade bi yëpp di may jooy. day jooy parce que man nag euh, dama xaw naqari bëri. Mm-hmm. père yi ku mel ni Papa Sow koy maa ngi koy seet ak Ousa. waaw ñoom mëxëri ñoom Batika ñooñu jàngal bëri. man tey defet fii su ma amee parcelle Modou Lo moom fa dem ñaari yoon

xanaa xam moom man dama doon jékki ba pare bëri di bëri mais mbër ñu eggale fenn rek nga xara fooy daal ko ko laal soo ma jëloon la soo ko jàppee mu sax bu ko jëlee non Modou sama <laughs> a dafa mën a bëri parce que man dama mën a bëri maa moom fayee ñu ku nekk mu njëkk mu jël tànk changement de pied de popo

da doon yenu waat ba si ko dóor suuf mais man mbërum tànk la dañ léewtoo ma moom ndeysaan mu ne ne ma xas xar ma yenu ma mhm. bi ma yenu ma mhm. deux minutes mu teg ma mu mu écarté taf suuf mu daan ma ñaar yoon ci laa xam dafa mën a bëri moo tax su kenn moom ci bëri day songu day xaar mhm. parce que am ñoo xam da ngeen songu am ñoom da ngay daje ñoom am ñoom da ngeen jëm mhm. am ñoom da ngeen di xaar moom nag daa mën ci bii bor mën ci bii bor moo tax lii mu egg si lamb vraiment da ko mérité ak barkeel waajur gaa yi nañu yemale fi émission bi waaye Bouga parce que tey da ngaa bëri tànn. muy yemal sax mu neex mais dañoo bëri émission bi dafa neex dafa neex boobaa Moussa Diallo dafa may dóor caravane. non kontaan nañu dinañ si ñëwaat tuuti mais loolu lañu leen andiloon si revue de presse 100 pour cent lutte bi sans plus tarder dañuy accueillir suñu premier invité mhm. mooy Moussa Diallo Boucar mhm. c' est le porte parole du mouvement pour la renaissance du karaté sénégalais MRKS karaté nag dafa bëri problème dafa bëri coow bëri coow man képp ku ma xam xam ne man bëgguma lu nooy suma live man nay métti rek ful ak fayda jom dem ñibbi dafa am lu ma tàmbal gars yi te sama bët bi daa am fu ma ko teg. Ah, soxla ma wax ju bëri dama si bëgg jëf ju bëri. waaw hmm. nga sakkanal say batterie. man duma ko ñuy appal ay temps. man duma ko naan ay une minute ak yaakaar naa ne yow sunu combat bar bi siflet dañuy daje parce que ni ma gisee ngay wax nii. doo dellu ginnaaw. non loolu moom bu am jàmbaar. loo ciy hésité wala du ma a arrière mi. bu ma wax signature. bu arbitre sifflé def naa ko. 30 secondes nga wax. 30 secondes laa la wax. bu la neexee ngeen xaar. yow wàcc nga bu yàgg nii dama koy bëri ak yow. xam nga lu ma bëgg dama bëgg ngeen ma dama lay woo digg ñàngatang mooy nga yokk gaz bi. man si digg ñàngatang laa gaz soo yor boo yokkul gaz bi baalu mu la barki Seydina Mohamed. sa taal yokkal ma lay assommé.